Baye Sall yow da ngay def li ngay def di manigaase bu ñii ñëpp yaa leen di woo ndaw seew ak ñeneen ñi laa leen di activé di leen dulloo di leen wax di leen jaxase ba pare toog mel na sa yoon newu ci man vocal yi man ak yow ko doon waxante te man disconneer laa yore mais bu ma commencé ñëpp woo ma Sali léegi la coupé ba waale ngi nii yow war ngaa sant waali war nga sant ay nitu waali sekk parce que li na sama xol bi ma war a kett ndayam moo bëri billaahi mais damay obligé bàyyiwaat bu set pa waale ngi nii léegi la coupé waxu feneen tool yi pas fii nii yow fii la bokk yow nii ngeen def nii moo amul benn benn sens te yow xam nga baax li ma lay wax te di nga boo defee nii ngay def nii ba pare après waaye dina ci mer te ñun ngay jaxase ñun ñun ñu nekk ci mbir nii li ngeen def nii ñun ngeen jaxase ci mbir bi lay wala mais yow baawaali démb danga ma démb danga ma danga ma ñaan baawaali ma bàyyi lépp yàlla ñi woote ñoo bëri yow Baye Sall yow am nga ñaanu waajur war nga sant yàlla ah barki alxuraanu karim yi war nga sant yàlla quoi dinaa ci pare nag bàyyi coow li mu sedd gel yooyu nga yónnee ñuy duul su ma génnoon ñu su <laughs> nga bàyyi àdduna mais day këpp ci kaw waali après ñu ne man maa tooñ waali te fekk waali dama ko bëgg garaawul naa muñ loolu bàyyi mu sedd baax na manigancé te lii dafa am ñoo xamante ni ñoom ñoo nekk ci ginnaawam ñoom ñoo ko activé te ñu ko activé du du ñenn ñu dul waaraam daal te li may wax ay preuve yu leer nañ laa ci am li ma def nag ba xam audio yi fan la jóge noonu laa xamee ki nga xamante ni moom moo nekk ci bopp lii di activer Adamo pour mu dal ci kaw Baye Zale ndax yaakaar naa ne fan yi ñu génn ñu ngi jot ay information naan waale Seck dafa am entourage am ñoo xamante dañ koy liggéey tudd nañ fi Omaro tudd nañ fi keneen ak keneen alors que yooyu yëpp dara nekk ci Wally Seck magum jëmm la yaakaar naa ni moom mooy suñ salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi waxoon naa leen pare naa ci coow li Baye Zale jël na samay audio yónnee ko gel bii génn ko ba jaxasaloo ko ne ko waxal waaram daan ñoom ñooy activé Adamo ba mu tudd ko noonu jël ay ojo yónnee ko léegi nag damay ñëw katt ndeyu réew mi soxna Ayda bu Serigne Saliou yaa ma ñaanoon ma ne bàyyi naa mu sedd Pa Wali yaa ma ñaan ma ne bàyyi naa mu sedd Pascal yaa ma ñaan ma ne bàyyi naa mu sedd Lamzo yaa ma ñaan ma ne bàyyi naa mu sedd Lamine Ballago yaa ma ñaan ma ne bàyyi naa mu sedd euh, Salimata Gueye yaa ma ñaan ma ne bàyyi naa mu segg ñëpp woo ma ñëpp ñoo xamante ni mënu ma di tudd te sës nañ ci waali tamit woo ma ma leen bàyyi naa mu sedd mu ñëw génne ay ojo na day démentir day yónnee nit pour muy fen di menegase amoo fit yoroo ay koy nee nga da ngay yónnee ay ab télé pour mu génn envoyé ko samay audio man mu lay waxal di ci dugal waarantaan bu ma génnaatee kat data ndayu dëkk bi ba ci kanam